رضي الله تعالى نونو لا نيكي بير فيز بتابخ زاوية بزاوية بيك منو لا نيكي إليمان واي نيكول إليمان كوني واخ محمد المصري موم لا جيل دافكو موي إمام الزاوية يبو جولو كي نيكون إمام الزاوية سيدنا شيخ أحمد تجاني تدو محمد المصري ديدت دي. ci arab boo waxee muhammadul misri mooy ki nga xam ni mu ngi askanoo misra mu ngi dëkk misra al misri comme ni ñu waxee cheikh seydul xaaji umar al fuuti al fuuti bi ngay dégg loolu mooy firi lan mooy ki nga xam ni cosaanam fuuta la al fuuti yaaw asli boobu noonu nga si indi al fuuti al misri boo ko waxee mooy kii sosoo misra tuddul muhammadul misri sayid muhammad ibn al mishri chiin la chiin ak ra nga teg si yaa bi mu ñëw misri dégg nga misri kenn du wax misri misri boo ko waxee mooy ki dëkk misra aha comme na ngay wax borom fayda bu ngand bi cheikh alhaj umar al fuuti al fuuti mooy ki dëkk fuuta ki cosaanoo fuuta fuuti kon boo waxee misri mooy ki nga xam ne moom waa misra la or sayidna cheikh mohamad ibn al misri nekkuloon waa misra misra moo égypte dégg nga de kenn du wax misri mohamad ibn misri ngay wax kon baati laa ilaha illallah amul dara lu ko gën a rëy bëgg nag mu sax ci yow ba nga nekk yow di laa ilaha illallah al aarifuuna billahi moo tax boo leen déggut rek dugal leen safara te fekk ñoom ñooy génn safara dugal la fa yow parce que ñàkk leen a dégg sax nit du mën a nekk yàlla te du nekk yàlla ba fow amul benn mbindeef bu mën a nekk yàlla te du nekk yàlla ba faw yàlla moom yàlla dong la moo di laa ilaha illallah allah jeex na waaye nit day incarné yàlla ba faf seey ci biir yàlla boo seeyee ci biir yàlla yaay kan yaay moom mu di yow minka ilayka موم لا شيخ عبد القادر جيلاني سلطان الاولياء بام تي تولو ني انا الله ما يالا حال بي واتي غاي نكو دي واخا في لو خامني بوكو واخاتي ني دوك سا بوب دي دا ngay دوجو سي كفر مني لوما واخ ني نكو دا nga tok bam yag nga ne ma yalla mune suma ko waxate jël len jasi dok sama bop jox naa leen ordre may naa leen ci ndigal mu tolluwaat ci rek fekk am na fooy waxee rek am na ku mel ni Mansour gi koo xam ne testé rek la bëgg ndekete am na as waaju mboq jaaseem rek di ko di ko yoru rek xam naa moom daf ko bëggoon a rey rek te ak di seet ndax li sëriñ bi di wax dëgg la ba mu tolluwaatee ca xaal ba moom Cheikh Abdul Qadir Jeylaani <laughs> ponkal la de ne ana allahu rek waa ji génnee jaasi ji rek cor bopp bi daggul mu cor Mucor mu cor daggut ñetti yoon Khadir bi daggul ci abdul qadir ne ko looy def mu ne ko yaa waxoon ne boo tolloo ci xaal bi boo waxee ne may yàlla ñu dog sa bopp mu ne ko ah, feeg maa ngi ci xaal bi mënoo dog sama bopp ndax naa ci jëmmi yàlla di ci yàlla du dee xam nga xibu jollo sa wax ji ngay wax ni sa taalibe yi lay xaw ma ndax xam ne duñu comprendre si sa wax ji yaa ngi tàmbaleen wax ni kenn du nekk yàlla nga duggaat si biir nga ni boo demee nga sax si baatu laa ilaha illallah da ngay sees yàlla mu doon yow nga di moom bon sa wax ji kon mu ngi commencé jaxasoo ah. kenn du nekk yàlla ba pare da ngay nekk yàlla yàlla di yow bon sa wax ji kenn xamul lu muy firi te li nga wax ni taxawul booy wax ak nit ñoo xam ni yow lañu jàpp ni yow yaay boroom xam-xam yow lañu jàpp ni yaay seen sëriñ fexeel nga leen di wax lu leer ñoom ñuy mun a am lu ñu jàpp si seen xel yi déjà yàlla affaire am euh, <coughs> neexul xam yombul xam dégg wax ji même ñi jàng sax wala ñi xam dëgg-dëgg buñ lay wax sama genre gi wala ñu mel ni ñu lay seetaan mën nañ ci mën mën nañ ci bañ a xam lu bari li nga bëgg expliqué expliquer nii te xamoo ko ngay dugg di wax si waxu Abdul Qadir Jilani dugg ni fii génn fii yooyu yëpp ay waxu jaxasoo la li nga mu nga li nga war a expliqué kay nit ñi mooy yàlla dina dem ba def li ñu woowee si français manifestation divine mu koy def si mindeefam bu koy jaamu te manifestation divine suñu ngandama suñu ponkal suñu sëriñ Cheikh Seydul Hajj Abdul Hamid mu ngi ñu jàngal ni que manifestation divine mooy si arab li ñu woowee te jëlli loolu nit mu ngi koy amee ci turu yàlla da ngay yore turu yàlla di sikkër di sikkër di sikkër ba yàlla feeñ ci sa jëmm ji yaa ngi def mu def manifestation divine te jëlli loolu bu amee su ko defee yàlla mun na di wax à travers yow sa jëmm ji bo demee si jawahirul maani Seydina Cheikh amri tidiani mu ngi koy expliqué di ko leeral si waxu nit yàlla yi am na wax yu lënt yu yu nit yàlla yi doon wax yi ngay woowee al aarifuuna billahi foog nga firil nit ñi lam mooy aarif billahi al aarifuuna billahi mooy ñan du muy wax si arab al aarifu billahi aarifu billahi mooy koo xam ni day xamee ci yàlla loolu mooy al aarifu billahi ay dégg wax ji ñooñu nga ne nit ñi dañu yóbbu safara déedéet nit ñoom xamuñu sax lu lu ñooñu di wax bañ leen yóbbu safara yoo kay sa wax ji ngay jël nga jaxase wax yi nga naan da ngay dem ba nekk laa ilaha laa yàlla di yow ngay moom du noonu wax ji du loolu yàlla day def li ñuy woowee manifestation divine bu ko defee si mbindeef bi yàlla mun na di wax nag à travers nit nit ki di wax ñu yaakaar ne moom nga fekk yàllaay wax si làmminam loolu Seydina Cheikh radiyallahu anhu mu ngi koy expliqué si Jawahirul Maani ba indi la si wax yu bari yu mel noonu yu nit yàlla wax ba mu expliqué waat li nga li nga mu mu indil waat encore yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom si boppam nit yàlla yi dinañ nekk si xadara yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax fekk yonent bi mooy wax si seen lamine mais ñoom ñuy wax boo ko déggee da nga yaakaar ni wax ji ñu ngi ko askane se ñu ngi ko askanele seen bopp waaye déedéet ñoom ñooy wax Seydina Cheikh nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy wax si seen lamine wala tamit nit yàlla buy wax yenn wax yu ngand yu wu yu rëy yu muy wax ñu yaakaar ne da da ko askane da ko askanale boppam waaye askane ko boppam yàlla moo wax jaarale ko si làmminu mbindeefam boobu wala làmminu nit yàlla boobu xiisa bi nga doon nettali ni rek si abdul qadir jelaay ni nga ko waxee du noonu toogul toog rek jékki-jékki ne moom mooy yàlla déedéet xiisa bi du noonu la demee lii ba tey kii xam xiisa yi <laughs> kii tiim monde entier ki nga xam ni moom moom xam-xam soo buggee dégg lu leer ci xam-xam demal ci keppaaram kooku mooy kan sayyidu cheikhul xaaju Abdul Hamid Sarr neex-neex moo fi nekk naqari naqari moo fi nekk gis nga aarifuna billaahi ñoo ñuy wax moom xam na seen wax moom dégg na seen wax moom xam na seeni sew-sew moom mun na leeral seeni sew sewu wax noonu la mbir mi demee moo ñu nettali xiisa Abdul Qadir Jeylaani bi nga jéem a nettali nii tëdd noonu dafa la ni Sayyid Abdul Qadir Jeylaani radiyallahu anhu bu nekkee si julli buy waaj a julli yaa ngi dégg xam xam nga nit yàlla ñoom bu ñu xabaree rek dèjà bu ñu rek ñu fanaaw bu ñu noddee rek ñu fanaaw bu ñu xabaree mu gën a ti garaaw nee na bu taxawee di kabar bu ñu bu ñu bu ñu euh, bu ñu liqaamee ba muy waaja a kabar بو يكتل خمي دانا ملكي أكبر من ملكي دانا دانا ملكي أكبر من ملك الله الله أكبر دا يوحني نقورا موغانا ماغا نقورا يالله لول نون مو يوح نون سي جولي لا كاي فك بو نيك دي جولي فك بو جولي نيكاتول فوف موم نيكاتول موم فناونا بو ياغ ياغي ديغ واخجي بو مو باري جولي غاي واخ كو نيكو اه ياو لي واخ ني غراونا مون لا ني نيتلي واخجي mu ni leen bu ko waxatee nañ jël jaasi dog boppam gaa ñi mu tëg jugaat mu jugaat jëmaat si julli waxaat loolu bii waa ji jëlee jaasi bi bu ko bu gor jaasi bi moo seey waaye du dafa dóor dóor affaire bi demul jaasi bi si boppam moo seey bi ñu pare ñoo xoog mu nekkoon xam nañ ni du moom moo ko doon wax puisque jaasi bi si boppam moo seey loolu mu delluwaat ci lii la na Cheikh doon expliqué fee si Jawahirul Maani mu ne la ñooñu nit yàlla yooyu dañuy nekk si instant boo xam ni dañuy am te jëlli wala manifestation divine bu amee sunu borom mooy wax jaar si seen làmmiñ waaye du ñoom ñoo wax wax ji nii la demee c' a dire que nit ki moom du si dara nekku si dara manifestation divine la am yàlla moo feeñu si jëmmam ji kon yàlla mooy wax mu yàlla moo jëf foofu du nit ki kon bul delu wax nit ñi ni que parce que li ngeen wax ñom seen bopp dafay def mu ci jaxu seen bop nga wax nit ki mom moy nekk yàlla wala yàlla nekk nit ki kenn xamul li nga wax ni lan la boy yi ni dafa nekk domaine bo xamni man mi sam walu bop sax su nekkul lon sa wax ju jaxasoo nii du ma si sañ àddu di wax wax melni yi dal ñu ci wara wax compagnie ñom alaaji malik radiyallahu taala anhu compagnie sunu ngand yi ponkali cheikh sayyid al hajj abdul aziz ñom cheikh al hajj omar al futi ak ñom cheikh al hajj abdul hamid ñoo ñu nga xam ne ñoom ñoo bokk classe ñoom ci même champ de course bi la ñuy daw ñu noonu ñoo ñoo war a wax si yooyu. Mhm. te xam nga danger genre wax yi ngay wax nii lu tax mu graw moo nekk nit ñi da nga leen di wax wax yu mel nii ñu jël ko ñoom it dem gëm ko parce que pas-pas ngay def si ñoom lii pas-pas nga li nga ngay def si ñoom bu ko defee ñu gëm wax ji wéyee ko ñu jàpp ni dëgg la ñu jàpp ni lu am la mu nekk pas-pas si ñoom te lii pas-pasu bokkaale la aha parce que li la sayyid cheikh alxaj abdul hamid wax te li mu li mu jàngal nit ñi pour mu mun a leer seen bopp yi mu wax ni que yàlla sunu borom amul dara luy jokk si moom amul dara luy génne si moom mu ne la boo déggoon bayt bee si jawahirul maani fama thamma mawsulun wala thamma baino yàlla amul dara luy fàcc si moom amul dara luy jokk si moom Mhm. te parce que bu amee lu jokk si moom maanaam nit yàlla nga wax ne dañuy dem ba seey si jëm si biir si biir yàlla bu amee lu sey si biir yàlla kon am na lu yokk si yàlla te yàlla dara du yokk si moom yaa ngi dégg wax ji te loolu waxu bokkaale la te bokkaale lu tax mu garaaw li la alquraanul karim wax la in ashrakta la yaxbatanna ko boo bokkaale sa jëf yépp lañuy mab te jàpp ni yàlla am na ko mën a dugg si moom ba seey si moom loolu bokkaale yàlla ak leneen la ak keneen la te boo bokkaale sa jëf yépp ay màbb yépp ay yàqu moo tax it yow su fekkee yow loolu intéressé wu la ñi ngay waxal te xamuñ ñoom ñu jàpp na nga xam ñooñu tamit tax na si box na si ñi tax ñuy wax pour ñoom ñu yeewu xam fu ñuy teg seen tànk xam li ñu war a retenir ak lu ñu warta retenir tawxiid moom nga war a jàng nga wax ko nit ñi parce que li ngay wax ni du xam-xamu taxuy te man am na question ma la bëgg a posé dama bëgg nga wax ñu yow kan moo la sóob si yoonu yàlla jusqu'à ce que tu te permettes de toog di wax naan da ngay waxtaan si maarifatu billahi parce que déjà yaa ngi li li nga wax si tariqa bi li nga xam ne wérul du noonu bon yaa ngi def ñu ngi ñu ngi jéem a corriger mais lii da nga da nga da nga franchir encore beneen point mooy lan dem di yàq pas-pasu nit ñi pourquoi parce que nit ñi nga xam ne seen dara dëgërul peut-être buñ la dégloo nga wax wax ju mel nii ñoom ñu jàppee ko nii def na si ñoom pas-pas te bés bu xasee tàbbi ñoom ñu ngi si problème tànk que yeewuñu moo tax ne yéen ñi di déglu bu jàllo fexe leen ngeen yeewu bu leen xool rek kii di wax non xool leen li mu leen di wax bu leen jàpp ni woy kii benn waay bu contre la bu non non non yàlla xam na ni du loolu de ubbi leen seen xel yi ubbi leen seen xel yi ngeen réfléchir aha ngeen xool bu baax li ma leen wax ni ngeen analyser ko xool ndax am na wala amul ngeen dem laaj fekkee xam ngeen ñu jàng tawxid ñu waxal leen ñu ñu confirmer leen lii ma leen di wax nii attention de pas-pas lépp jullit mooy pas-pas tawxid boo ko amul amoo dara loo jàng-jàng fiq loo bëgg bëgg wër de tariqa tijaani loo bëgg a jàpp dugg génn yéeg wàcc jëf yooyu yëpp yëpp yëpp mu ngi reposer ci tawxid te tawxid bu baaxul dara du baax wax naa la li ay alxuraan wax parce que tawxiid am na yenn yoo xam ne boo ko jàppee te gënul noonu da ngay bokkal yàlla saa nga yëg ko te loolu maari détail moo tax it jàng am solo xamit it même boo jàngul it del déglu ko xam parce que Hibou Diallo di ko déglu mu lay wax yi baaxul wérul mhm.